saraax la def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Ama Baldé ak seen combat ba Luc doon taxawal Luc Nicolaï s'offre le super combat diggante Ama Baldé ak Modou Lo finalisé tey ji la ñu fas bile combat ña doon laaj diggante Modou Lo ak fan la ci Luc Nicolaï nañu commencé ree ba taxaw na Ama Baldé juboon ak Luc Nicolaï juboon ak Luc bile combat ñi doon laam-laamee ndax dana taxawam déet nañu mujj naa bàyyi 17 laaj 90 Modou 150 Ama Baldé 90 ci lii la Luc Nicolaï mujjee juboog ñoom journal ba xam le ne altine bii nag ci kër avocat Luc Nicolaï la ñu fas yéene finaliser bi bu dee Balla Gaye 2 moom dafa mel ni yaramam dafa tàng je veux un tournoi VIP la wax tournoi boo xam ne ñun VIP lañ ñooy boole ñu bëre suñu biir rax ca dolli moom la Lion de Guédiawaye ne ku ñëw baax na mbër fi nekk di ngand ngand lu ku ñëw ma defal la bagage bu dee semaine bii ñu génn diggante samedi ak béb néew rëg-rëg foo yaakaar rek rokkos na fa Sofiane du may metti la ko duma ak di yenu ba ca kaw di dóor ci suuf moom rëg-rëg xaarul sax troisième round ba ci cinq minutes daal la defale Sofiane affaire boobee fekk na ci Iba Mar Jackson Senior moom mi di defal Pape Ndoye affaire bile ñépp dañoo yaakaaroon ne bu duma di am ca Pape lay jógee waaye mbooleem ñi joxoon Pape Ndoye ci wàllum xeex am nañ leen jaaxal keroog diggante Jackson Moustique ak Boy Sine moo fa woote woon waaye Moustique dafa mujjee corriger Boy Sine en une minute 45 secondes moom Boy Sine bu Rock Énergie daal mujjee wuta am dara ci kanamu Moustique boobee fekk na ci Adrien Senghor ci 9e journée caaka fay moom di imposé ci kanamu général Malika journal ba xamle ne mbooleem ña teewoon keroog ci Adrien Senghor caaka fay da leen néewal doole général Malika la mujjee am final xañ ko kañot ba 600 000 francs et ne booy bawal mu ngi ci yoon ndax tegale na trois succès ñetti combat yoo xam ne yépp ci victoire la jóge loolee moo xew ca dimanche ba ci biir réew mi ca Iba Mar Diop booy bawal 2 daa daan Zal Bambey caaka fay daan général Malika Moustique daan Boy ca arène nationale buñ jàllee ca Gambie foofu combat royal moo fa amoon diggante Baye Mandione a xooyantaan spécial ba liiru jaan la woon ak wulli bu ñu desandee ca diggante liiru jaan ak wulli seen combat day commencé mel ni mitrailleuse wulli da koo topp di wulli muy reculer muy wulli muy reculer ba mu génn saaku ya doyetu ko moom wulli mu continuer di ko wulli ba mu génn stade ba arbitre ba woowaat leen ca digg géew ba wulli defaat maninam wulli waat ko mu génn saaku ya mu wulli waat ko mu génn stade ba mu continuer di ko wulli ba ca féeri ba ku irrégulier yooyu wulli doon joxe moo tax arbitre ya disqualifié ko diggante Baye Mandione a xooyantaan foofu disqualification weyam Baye Mandione moom mi lànk ba tëdd ca ñag ba ne du dagg benn we arbitre ba ne ko da ko dagg Baye Mandione ne ko du ko dagg fu ne nit soqeekoo na fa ñëw Baye Mandione ne ala mukk du dagg ay we na mu mujje mooy journaliste bu yor caméra mu daw ci yow wan lay baaraamam ne la ana we yi naka la arbitre ba toog ba sonn Mandione daggul mu disqualifié ko mbooleem ña teewoon démb ca stade bu Gambie am nañ leen naqari li ñëpp bëggoon mooy Baye Mandione a a mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah